internet yi comme ni nga koy faral di ko defee rek ma daal di tënk ko ci làmb ko ci bar tey ñii ak nga xamante ni gën boo ko présenté ci làmb nekk Verba ginnaaw ndaw la am solo yi nga xamante ni doomam Youssou Ndour am na ko ci kaw Gosé numéro ma ne bu ñu gisee doomam daal di am ndam loolu war ñu fekk parce que doon na ki nga xamante ni moo tàggat Balla Gaye numéro 2 ba tey mu ko ci keppaaram tamit ci la Balla Gaye numéro 2 amee takkusaan bu nekk ak jaloor yu ne daa ci dégg daal di dégg dégg aussi roi des arènes loolu aussi bu amee war ñu mën a jaaxal donc Père Balla tey ñu ñëw fa seen waxtaan ak moom nekk wax ñu ko mu gën a présenté avant tout ñu bàyyi ñëpp di baal am di ñaan yàlla ñoom ñu jàpp sax bi yàgg fi ndax kenn mënul am dara amuloo jàmm kon su réew mi amee jàmm ñëpp am jàmm réew mi daal di neex liggéey lu waaye liggéey mën seet yàq waaye yéeneen maa ngi leen di tudd bu baax di leen gërëm leen seet si li ngeen seet si tey secret moom mooy sport boo ko xamee sport balaa ngay mën a wax sport nga yar d' nit ñi bu pare ku yarul mënoo def sport parce que sport bànqal sa yaram la ndax heure waxtu nga waroon lekk nga koy daw waxtu waroon lekk ngay def musculation waxtu waroon wax nga waroon lekk kon nag xam nga yombul daal il nga am yar il faut nga am nga am mat doo ko mën a seere loolu moo tax man la seere écurie école de lu jafe la ndax il faut nga yar nit ki pare doo nga mën na def li nga bëgg a def. parce que dañuy gis xale yi sax koo xam que képp koo xam te ne toog nga gëj a ñëw entraînement da ngay ragal a ñëw parce que da nga naan daan yoo xam nga jour ngay ñëw wala nga koy ragal doo ko wax dëgg kon yaruloo da nga koy yàq ndax it indi seen bopp du kenn si ñoom koo xam a ko fi indi ku fa ñëw yaa fi indi sa bopp même Balla Gaye de woo Double de kenn ko yaay waaxu ba ñëwee sa bopp xool mu doon rek nga summeeku entraîné Youssou Ndour ñoom si li ñu juddoo bu ñu nekkee xale ba léegi foofu lu ñu nekk ak fils de Balla ñoom ak ñoom mbës ñoom presque ci école lu juddoo lu mel noonu bu amee mbiru yàlla moo si dugal loxo la amul benn problème boo xam ne ni yokk nañ ko wala rax nañ ko si li wóor wóor daal mooy nañ ñaan yàlla mu gën ñoo jàpp ñun waa Guédiawaye jàppal ñun waa Sénégal pour ñu mën di yar xale yi fi ñu leen bëgg a teg ñu teg leen fa ñu déggal ñu. père bu njëkk aussi sa doom monsieur Nda fi nekkoon comme entraîneur doon ko def liggéey bu am solo euh, finalement mu mujjee dem fi nga xamante ne mooy bitim réew mais boobu ba léegi Lamine Golo di assuré intérim bi moo ki nga xamante ne mooy Mbës nan nga gisee liggéey bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def. waaw ah, xam nga Mbës nga fa Lamine Golo nga fa ñu ngi entraîné gërëm leen sant leen ndax xale bu defee lu mu war def rek doomam nu muy gërëm ko ndax wax dëgg yàlla loolu ñu def loolu lu ñu war def ndax du tey rek li ñu commencé dugg si mbiru saal ndax mbës ya mu nekkee xale bi rek si la nekk eh, la la kii Lamine Golo bu mu nekkee xale ba nekk mag si la ndax moroomu ñoom bàll ñu doon kon nag bu ñuy nekkee lii ñii dañuy nekk di ndax sport moo demee noonu saa yoo ba yaakaar ni fii nga war a yem rek am na koo xam ne foofu lay commencé pour dem waaw ah, ñu gis tamit benn complicité mën naa ne déggoo ba am te am na seen biir parce démb Lamine dafa taat mujj ñëw làmb ji mais mbës moo ko fa nekk na seen biir moo ne liggéey bi doon liggéey boo am te ne tey kóolute lal na ko ak respect. Ah, mbës ak Lamine benn lañu xam nga écurie bi ngeen ko bokk wala li il yi il faut ngeen nekk benn pour gars yi xam li ñu war a def li ñu war a def ñu mën koo def waaye kii jëm gauche kii jëm droite li ngeen mën def leen ko def moo tax mbës dugalante ñu ñëpp benn lañu ñoo bokk day ñoo bokk baay lu kenn ki war a def mën koo def ki ci des mën nañ koo def amul beneen problème boo xamee ni rax na si amul beneen wax boo xam ne daañu ko si wax lu muy ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def parce que man lii ma leen entraîné ba ñuy dem di daani mbër di ñëw kenn ku ne mën nga kon su ma toogoon def ma daraat ñoom mën nañu continuer jël seen yoon di def lu ñu war a def Ah, ñu gis aussi taxaway bi nga xamante ni Balla Gaye 2 am na ko fi mu toll nii parce que bi mu bëree ba ba pare tamit mi ngi kon di ñëw fi am tan mooy école ba chaque jour entraînement di taxawu booy di leen préparer ba ñu ci seen bis nga xamante ne am nañ ko taxawaayam boobu nan nga ko gisee. waaw ah, xam nga Balla Gaye 2 champion la te it ndaanan la ndaanan du juum Balla Gaye 2 ndaanan la champion la te it wax dëgg yàlla lépp lu mu def xam na ko xam na ni ndax il faut mu am ñu ko remplacer xam na ni mbër gi kenn nit mënu koo def mbooloo koy def. il faut nga ni nga tàggatoo sa bopp nga jappal ay xalé tagal leen ba li nga bëgg def nga mën koo def li nga bëgg def sa morom boo liggéey nga essayer ci si ci ñom résurgir si dem defi ko ci instant à part loolu solo bu leen weesoo tamit gis nañ bu njëkk li nga xamante ni moom lañ benn union benn mobilisation benn déggoo nga xamante ni mbëru géej waaye déggoo woon nañ ko au fur et à mesure ñu gis yenn diggante yoo xamante ni mi ngi commencé nekk gis nañ ko ci mel ni diggante Balla Gaye ak Elton gis ko tamit dégg fi bët ko démboo Ndiaye ci mel diggante Guy gi ak Balla Gaye dégg am fi aussi tamit Lamine ak nga ndigal mu doon ay yenn ñu koy dégg en tant que kilifa ñu bu bëgg yow ñu dañ def fi école de lutte tey ban la message ngay lancé ci loolu pour daal gërëm Aliou Sall bu baax di ko ñaanal yàlla fanam gudd di ko ñaanal yàlla bàyyi ko si sunu kanam di ko ñaan li mu bëgg si Sénégal si géej way mu am waaye xam nga man mbës ak euh, Lamine Golo jotawuñ dara Balla Gaye dégg mba Lamine Golo jotawuñ dara ndax xam nga ay xale du ñàkk kaw di si am ndax lu toll nii succès moo raq moo naq di réglé kon nag bu dee léeg ñu waxtaan am problème bu ndaw bu ñu xaw a rek loolu arrangé nañu ko ba jeex na. ñoo bokkoon di liggéey liggéey nañu réussir nañu ñetti combat ngi ni xaw ma ñeent ndax Balla gay Junior daan na ki nga xam ne mooy Gàkku Do daan na Youssou Ndour daan na ki nga xam ne moom mooy euh, Sakees daan na lu ñu mën na muy sant yàlla ndax benn géejoo ñu nag ak waa géejooy amuñu benn problème ndax bëre su defet commencé am xuloo day am ndax nit ku moo xamul defet xamuñu ko loo xamul na bu ci xëyee dugg rek da nga yaakaar ne sa àddina ngi tukki loolu moo waral li fi jaar jaar bi waaye du benn problème jotewuñu dara du benn nit loo xam ne kenn jàppal na ko sa morom xuloowuñu xeexuñu jotewuñu dara di ñaan yàlla xale yi écurie woy moo fa dem Balla Gaye de beneen écurie yëpp benn la ñun ñëpp noo bokk ndey noo bokk baay te sunu kilifa ñu ni ñuy dimbali waaw père ñu ci li nga xamante ne mooy li nga xamante ne tey sa doom doon na ko bëree muy Youssou Ndour am ndam lu solo ci kaw ki nga xamante ne mooy Boy Sèye numéro avant tout ma ñëw ci préparation parce que dañu gis Youssou d'habitude doon na ñëw di andi benn combat bi gis ñu ko mu andi ci force na na li nga poids bi daal andi aussi nga lan tax ngeen ci xam nga entraîneur yi ku nekk ak ni entraîneur xam nga Youssou boo xoolee ba si biir waa ji waru ko mën a ëpp sax waaye bu ñu nga xoolee si biir combat bi waa ji moo gën a ëpp ko doole te it mën nga Alizé 2 Alizé nan la tudd. Boy Sey 2 ak Youssou seen bëri noonu la mën def ñaari morom lañu ay xal lañu ñoom ñu sumay moromu doom lañu ku si daan tayet boo liggéey mën nañu laa daan ku si daanu tayet boo liggéey mën ngaa daan xale yi nee naa la mënante wuñu ñi ngi mënante si jàppante bi rek ak jàppale bi waaye ñoo ñu benn ñu Youssou Ndour Boy Seye ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo leen jur ñuy sunuy doom te it wax dëgg yàlla ku si waxul wax ju rafetal ñëw di nga bëggoon rafetal doo ko mën kon Youssou Ndour Boy Seye bëri nañu yàlla def na Youssou Ndour daan na ko su beneen yoon na ko may sens ñu ñu bëree ku daanal muy sa sens sa loolu mooy Guédiawaye mooy Pikine ndax Kër Massar ak Guédiawaye benn lañu kon dañoo wàll si woon rek ànd dem Dakar bëri fa àndaat ñibbis kon amul benn problème boo xam ne war nañu ko wax kon di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanu yàlla ñëpp jàmm yéen yéen ma ñaanal leen fi ngeen bëgg yegg ngeen yegg fa ndax li ngeen si waroon am sax amu leen tës waaye nag la joxee mission nga réussir ci mission bi rek li nga am nga ko ndax sant sant nga bu baax a baax. Ah, père ku nekk xam na aussi doom ni mu jógee ci xolu baay bi donc tey sa doom buy bëree euh, mun naan ak quelques minutes coup d'envoi nga toog di ko seetaan moment boobu lan nga yëg. waaw xam nga man dama bari ay doom. Balla Gaye fils de Balla sama doom ah ki nga xam ne mooy kàkku sa rakku la jarbaat la min kaamil sama jarbaat la ki nga xam ne Youssou sama doom la Balla Gaye deux sama doom ndax nit soo ko yoree di ko antenne guddeeg bëccëg muy xiif ak di mar ngeen di bokk nekk di muy am ak di ñàkk ngeen di bokk nekk kooku su su dégg sa gébbëri moog doom ji nga jur nga yemale ndax militaire dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg général bi wala ki nga xam ne mooy euh, capitaine bi ñooñu xamuñu kuy juru ku juru ñëpp ay militaire am lañu man nag li may wax école mooy ñëpp sumay doom lañu ñëpp sumay nit lañu ki mi si gën a bëgg daal mooy ma jur laa mu bañ laa jur mooy bu ñu ne entraînement nga góorgóorlu xam ne bis bu na ñëw nga am combat nga def li nga war def loolu la waaye daanaka ñun amuñu doom ñi nu am ñëpp ñoom ñëpp lañu yemale ndax ñoom na ñooy def ku si am xaalis dem seeti sa yaay seeti ku la neex ay jox ko waaye nun moom war am doom te amuñu ndax képp bu ñu dégg rek baax boo xoolee yu si démb indiwuma ko taxaw ma sa làmb te li mu war de def na ko kon nag léegi bu dee ba si biir ñooñu ko jàppale woon démb xamatu leen lu muy sottee duñ ci sotti moo tax man la sportif dëgg-dëgg du am ndey ak baay ak diw ma ñëw diw juruma da defar bu mu baax kay kenn ni maa juru nga defar bu mu baax ndey ñëw feeñ baa ñëw feeñ looloo fi am waaye kay kii mooy ndeyam mooy bàyyi mooy lépp. loolu am na solo mais père su may wax xam nga ni Youssou moo tax may wax kon dama ni tey bu demee moom kenn moom mi ngi bëri am takkusaan mu ah, na am si mbapat mu nekkee xale bi léegi mu ngi bëre te wax dëgg yàlla heure bi war na fekk mu dépassé fii sax c'est que li ñuy def li ñu dañ li sens bi ñuy may ñenn ñi li ñu mayul rek bu ñu mayul yenn sens di xool la xale yi di bëri parce que fukki combat ak juróom nit bëri na juróom benn combat rek avance yegg mais fukki combat ak juróom nga daanu fukk ak ñett nga daan fukk ak ñett euh, match nil euh, daanu ñaari yoon kooku mënul yàqal li dara wala benn yoon kon nag xam nga dafa di loo xamee ni làmb moo doy waar rek di daan di leen kenn du la daan waaye Youssouf fi mu fi mu war a jaar jaar na fa li mu war a def def li kii def kon nag moom ak ay moroom yooyu yëpp ñoo yem kepp na normal xamne defagul ci làmb ji dara day dogu dug dugg moom ñepp ñëpp tolloo ñëpp yem bu ñu nee ba ci kanam nak nag daañu xam xali kan moo ci gën a liggéey ci si géej génn rek monsieur Sass. su ma la yu Youssou Ndour jàppale bu jëwaat dëgg bu ko amon kon dépassé nek fi tan mom la toll ni ci lamb non amna na xam nga lu mu amul ci lamb ji ndax lamb ji mo nak di génn léegi suñ ne kii doomu diiw la rek diiw moom anamu ci lamb ji la nek rek dañuy gën goor góorgóorlu foofu bu jàppale la waa xam nga nga bëre fukki combat ak juróom daan fukki combat ak ñett am ñaari defet foofu la jàppale yéen ndax yusu du daan du day daan di daan di daan bu ñu yaakaar dootul daanu yàlla mu am benn erreur kooku nag xam nga ni njàmbaaram ak jàppale moo ko may loolu. waaw ah, am na solo dem ñuy waxtaan ak moom tey mi ni moom xam na li nga xamante ni moo ko doon gàllankoor defaruwaat na te aussi jàpp na ni ñu bëri war nañ ko jël ku ci mel ne ay ñoom fëgale ay ñoom jokkal est-ce que koo bokk ngeen ci xalaat. ah ñooñu mën na bëre ñoom ay làmb dafa laajul gaawal ñooñu ngay laaj sa mën ngaa bëri mën ngaa bañ a bëri ñoom ay jokkeel ay fëgala ñooñu ñëpp ñoo leen mag ci làmb ñooñu ñu ngi bëgg a sa kaw waaye li wóor wóor daal mbër muy bëri di daan waru soxla kenn na bëre sëgg fi mu sëgg ñu la jox nga daan ko toogaat ñi nga war a bëril nag amateur yi ñooy dem ba xam ne kii kii la war a bëril diw mi ak diw ñoo war a daje kooku moom lu leer la xaalis sa yoon la. à ah, dem bu ñu revenir tamit ci bëre bi Youssou ni bëri moom dañu xaw a jaaxal. parce que gis nañ ko ñun ñëpp Boy Seye andi na volume boo xam te ñun ñëpp yaakaaroon nañ tey xaw na sàcc Youssou doole ma loolu amul benn jàppante Youssou xeex ak moom bëri ak moom daal koy imposé li gëm ba aussi ci mbot mu rëy bi bëree bi jeexee tamit dafa jaaxal ñu bëri. ah xam nga Boy Seye dafa bëri erreur bëri erreur mooy boori da ngay def nànk jàppandi li nga bëgg su ngeen jàppantee bu ko bàyyi mu bëri bëreel comme moom waaye nag làmba ji dafa nekk làmba joo xam ne ni daanaka lu doy waar ak ni bëre bi demee nekkul benn Boy Seye 2 bëre na lu mën ndax bëre yi fa am yëpp boobu ko ma moo si gën a leer teg nañ ko si yoon bëri nañ ko si yoon xeex nag amul ndax Youssou xeex la yaakaaroon dana am si làmb ji waaye comme xeex amul nag il faut bëre am ndax ñoom ñaar fi ñu toll ni kenn mënu si daan sa morom si dóor rek kenn mënu si daan sa morom si bëri rek il faut que dañuy jàkkaarloo rek ku yàlla may ndam muy sa sens moo tax bëri démb bi demee noonu ba Youssou bëri na eh, Boy Seye 2 na gàcce ngaalaama kenn mënu ko wax lenn nee na xale yi loolu ñuy bëre léegi suñ ko dee kenn du leen jéppi ndax jéppi mbër mooy muñ nga bëri par ngaan ko cam waaye lii la moo la dal gaawantu nga wala def nga erreur bi kooku du yàq mbër wala démb gërëm nañu leen sant leen ñoom ñaar ñëpp def ñu effort kenn mënul xas booy sëy kenn mënul xas Youssou Ndour def nañu li ñu war a def te it loolu la làmb ji laajoon def nañu ko affaire mu doon ndam lu am solo gannaaw ndam loolu tamit mën nañ wax forcément dina am foo xamante ne fa lay yóbbu Youssou tey ñan nga jàpp ne tey ci yoon ñoom la war a bëreel ñan ay naataangoom Youssou nee naa la mbër dëgg-dëgg boo nekk yoon di bëri di daan làmb ji fi ñuy fi leen di atte mooy bëri daan comme yaa ngi bëri di daan koy soxla ñun nga ñi daanul bëri wuñu ñun ñoo la war a soxla nga tànn si koo si bëri koo si du bëri Youssou ngi bëri di daan fi mu ngi si fukki combat ak juróom mu mu juddoo ba léegi mu ngi si làmb ji bëri booba temps amul sax ñaar fukkaat di wóor di bëri ba tollu fi mu toll kon nag na kon si yoonu mu jaaral dal baax na ndax xaw naan diw diw na gaa yi nga xam ne ñoo bëgg a bëri moom bu dimanche na dem samp ndëndam ku bëgg a feeñ dëkk ko soo feeñee foofu lu ñu mbëtt feeñe waaye toog sa kër ni ñu ma jox diw diw laa bëgg man xawma loolu su la bëre daan bu dimanche ñëwoon sa lamb ja teg sa ndënd ñi la dëkk nga xam ne ñoo ñoo dëkk ñi la dëkkul nga xam ne dëkkuñu la nga dox seen combat ngeen bëri su ma la déggee daal doo leen toog di ciblé kenn képp ko am teen dox nañ ko yoonu làmb boole leen ko pare ngeen ko bëreeg moom. waaw loolu rek laa gis mooy làmb nag loolu laa xam si làmb waaye toog di ciblé nit nañu ma jox diw nañu ma jox diw soo ko laajee atum la mu ngeen bëre mu daan la looy laaj doo wax moo tax mbër dëkk mën nga dëkk nit nag dëkk bi mooy di ngeen bëgg a bëri ngeen bëri waaye du jaagin loo xam ne daf koy jar yenn coono yi wala yenn xeex yi jaru ko kon nag li ñuy bëree daal man kontaan naa si noonu laa bëgg xale yi di ko bëri. kàddu yi am solo ñu bàyyi leen kër tàggatoo. tàggatoo mooy di gërëm waa Guédiawaye di gërëm waa Waalo di gërëm waa Sénégal di gën di gërëm ñëpp di wax ne ñun ñaanal ñëpp jàmm. amatuloo droit di wax nit lu ñaaw ndax bo nee ba nek mag dem ba tollu fi nga tollu wara wax sa morom doom lu ñaaw wara wax sa morom doom lu rafetul kon nak gërëm na xalé yi sant leen ñu xamé temps bi seen temps la ñu ko tek ci yoon. am nañu loo seen ne ko mu amu estat am stade auto am ami ay fi rafet ko ko yalla jox wala waaw bokk internet yi mu doonoon waxtaan bi nga xamante ni seq nañ ko ak Père Balla mu doon waxtaan bu am solo avant de terminer juste je tenais à vous faire savoir que j'ai pris note de vos critiques et remarques parce sans critique on ne pas avancer dans la vie mais aussi sans vos suggestions et remarques je ne peux pas perfectionner mon niveau afin d'atteindre le paroxysme de mes objectifs alors bokk internet yi pour avant ñuy buur waxtaan bi rek bëgg a yegg mu doonoon waxtaan bu am solo bi nga xam te ne seq nañ ko ak euh, Père Balla Ngom ko xam te ne kenn door ko présenté ci làmb une décision pleine d' enseignement comme c'est nu koy faral di ko wax donc di sant ñëpp di leen sant di leen gërëm di sant aussi suma technicien l'autodidacte Bekay Koundoul